ku mel noonu yàlla lee ne nañ ko woo ci pénc bi dóor ko juróom-ñett fukki yar juróom-ñett fukki yar kii njaaloo ñaata yar la ko bële ñaar fukki yar waaye moom problème am mooy dañ koy dóor juróom-ñett fukki yar ba pare wax waa dëkk bi yëpp ne leen jiw moom lépp lu mu waxati nit bu ko bu mu ko gëm day fen fenkat la moom lépp lu mu waxati nit bu mu ko gëm ndax day fen fenkat kon kooku li mu def moo gën a njaaloo njaaloo kon suñu bëggee mat ay jullit duñ yem rek bàyyi lu bon dañ koy boole téye suñu làmmiñ yi ci tuumaal gor yi sénégalais nag loolu lu ko jafe la effort bu nekk ñu ngi koy def pour bañ a mooy mais téye seen lam yi ci ci nit moom lu leen tëkk ci la yàlla yàlla musal ci ci ñi mel noonu ma waxaat émission yi am ci dëkk bi te bëri xaaj lool ndax tax na mboolem ñuy publicité demee sponsorisé émission yooyu ndax daanaka ñépp a koy gëm lu tax parce que bakkan ak seytaan yi daa bëgg lu bon ñu bëri xalaas du leen raw ñu bëri test du leen raw loolu la wutkati xaalis yi xam su ñuy jaay dara dem sponsorisé émission loolu su ko defee suñ xamee dëkk gu bon feeñal ko suñu xamul dëkk gu bon kenn sos dëkk ku bon ku amul jox leen ko ñu feñal ñooñu laay ñaan ngir yàlla ñu bàyyi li ñu def ñooñu laay ñaan te ñaan gi maa ko tibbee sama xol ñu tëj émission loolu ndax bala moo lor société bi ñoom la ñu ko ndax yàlla nee na ku ko ci def dana la duma dana duma fi jaar te yàlla lu wax def <coughs> ñu jëkkal ma li may wax nii nag li may wax nii xam naa ne am nañu nekk ci gannaaw naan kii dafa xuuse dafa dafa xuuse du somb lu mën a naan xam naa ne ñu bëri ci ñoom buñ ma déggee dañ naan dañuy defe ne damaa dof wala damaa bëgg siiw damay wut tur xam naa ne ñu bëri ci ñoom li may wax du jeexital ci ñoom waaye du tee ndax am na ay yéene ne su ma ko waxee comme du sama wax waxu yàlla la ñu dellu gannaaw waaye man bu ñu delluwul gannaaw itam man réglé naa sama ko damaa bëgg am lay ci kanamu yàlla damaa bëgg am lay ci kanamu yàlla loolu boo demee suuratu Aaraf ñu bëri wala ay jàngalekat yu diine di ñàññ ay jëf di wax ne nañ ko bàyyi dañ dañuy jàpp ne ñooñu dañoo am jot rek ndax li ñuy santaane kenn du ko def et puis ñoom ñooy ñaan kan mooy Ahmad Dame Ndiaye ba mu taxaw fii naan arrêté li ñu sol mooy kan noonu la koy gisee il n'a rien man bu ma dul kenn itam su ma xamee lu yàlla wax dañ maa forcé ma wax su ma ci bëggee génn téye sa làmmiñ ci lii xew ci lu bon ku ko def dañ ko réglé alxuraan a ngi nekk li benn xew xew xewoon ci jamono ay yowut yoo xam ne dañ leen aay woon napp jën samedi ne leen bu samdee na ngeen nappalu bu kenn napp yàlla dogal samedi mooy bis bi kii gi gën a jax day fees dal ki jën jën yi dañuy fees bay dëpp bi dal ci tefes bi di dalwaat yàlla ne bu kenn napp am ñu ne ñun daal wax dëgg yàlla yàlla moo waxoon ne lu muy sant ni da koy man ñun li mu bëgg a def la mënuñ ko ndax géej gii ni mu déwéy jën benn bis doo nga lay am jën ci sawet bi muy samedi mu ne ñu bàyyi ci ndax ñun daal lu ko neex dañu ko def waaye ñun dañu na am ñu ne déedéet ñun de amuñu fit woowu waaye dañuy seral suñu mbaanam ci géej jën mu fa dugg samedi mu nappal ñu ko dencal ñu ko <laughs> mu nappal ñu ko dencal ñu ko bu dimanche lañ jël xanaa loolu am nañ ci droit ñu napp ñu samedi jàngalekatu lislaam bi xaaj ñaari groupe ñu doon jàngale ustaas yi ustaas yi xaaj ñaari groupe am ustaas yoo xam ne danaa mën daal du ma ci yëkkati sama lam yi ñu ma ciy mere di ma ci mere ko amati conférence du ma ko sant dama ciy noppi parce que mënuma ci dara soo ma ko wax yi duñ la faale et puis ñun lu ci suñu yoon sax ñun léegi kon ñun ñun bokkuñ léegi publicité wuñ dara ñu bokkuñu xalaat bokkuñu tës am ñeneen ne ñun day danañ ci wax ndax ñaari yëf alxuraan di ko nekk wa id qaalat ummatun minhum wa id qaalat ummatun minhum lima taisuuna qawman allahu muhlikuhum aw muadibuhum adaban shadida yéen ustaas yi ne yéen ustaas yéen lu ci seen yoon ñii li ñuy def ñoo ko tey xam nañ ko seetuñ ci lu dagan ak lu xaraam dañoo bëgg a dund te ñu ngi dund te soo leen waxee du te yow sa leen dëpp bakkaar war ñaar yoos teel ceen noppi yeneen ustaas yi ne déedéet duñ noppi ndax li tax duñ noppi mooy maadiratan ila rabbikum wa laallahum yattaquun dañoo bëgg am lay yowmal xiyaam suñ taxawee ci kanamu borom tabaaraka wa taala ñun ñëpp ñu teew kenn ku nekk ak sa responsabilité ñi sasoon seen bopp jàngale diine ci yàlla commencé di leen laaj Sénégal yi nga ne waaw yàlla da lay di la laaj loo xam di la laaj lu xam waaw yow lan moo doon sa wërsëg ci senegal nga ne sama wërsëg mooy yàlla baaxe woon na ma yàlla may ma ay wéytu way jur yi néeg maa yóbbu daara ma jàng alquran for ci aslëf jàng fiq for ci aslëf yàlla may ma ma am lu ma dégg ci diine ji mu may ma ma man koo jàngale moo tax maa ngi ko daan jàngale yàlla ne wax mais bul fàtte am na jamono joo xam Sénégal amoon na ay média yu créé woon ay ay émission amoon na ci bu tudd TIS am ci mu tudd xalaas seen liggéey doonu tool lu tasaare mbon yéen nu ngeen defam ñoom waaw foofu foofu foog nga rek ko foog nga wax mooy man de waxoon naa ko wax dëgg yàlla amoon naa chance wax xamoon naa sax bu ma ko waxee du ma faay waaye nag tey jii laa sóoraale maadiratan ila rabbikum wa laallahum yattaqun tey tam nag tey tam nag yàlla ku bëri yërmande la li addunay neex neex neex neex neex li affaire bi bëri bëri xaalis du ñàkk moos benn ma sàmba moo xam ne su déggee kàddu gi dara ne man kon dama koy bàyyi ndax man nag alal ji may amee fii jaral na ma sama àllaxira bu dee kenn sax baax yan jàll Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na benn nit jaare ci seen kàddu ba jub moo gën adduna ci biiram kon loolu moo tax ñuy wax ñun xam nañ ne suñu waxee sax kenn bu ñu faale xam nañ ne sóorawaale sóoraale ndax ñoom tànn nañ ba pare te lañu tànn dugaluñ ci lislaam bi ñoom wut seet nañ luy joxe xaalis ñi ngi am xaalis point très l'islam na ci téye làmmiñam benn bu ko neexee ni ñëw encouragé ba su ko neexoon bu téye ci làmmiñam na ci ñoo xam ne ci mentalité yooyu la toll ku mel noonu nag soo defee conférence di ko di ko fàttali mën na laa bañ a faaxe waaye li am solo mooy ñun suñu bopp la ñuy réglé mbokk jullit yi kon li ñuy def fii ci Sénégal lu garaaw mooy fisal mbon te mbon gi day ñoom ñoom day ñu ngi ñu ngi yàq